Je m'appelle Eric Maxime Choupo-Moting. Je suis euh, attaquant et euh, je joue au milieu offensif, ou bien à gauche ou à droite. Yeah. Um, Peter Crouch, uh, Stoke City, and I'm play strike. Je m'appelle Kurt Zuma, je suis défenseur central avec mes amis sénégalais, mes frères sénégalais Mam Diouf et Badou Ndiaye. Non, Mam c'est un, un bosseur, c'est un attaquant qui travaille pour l'équipe, euh, mais qui a en même temps des qualités aussi avec le ballon, euh, des qualités techniques. Et il s'est marqué, donc euh, ouais, c'est un bon attaquant. Je le connais depuis l'Allemagne. J'ai joué beaucoup de fois contre lui quand il était à Hanovre. Quand je suis arrivé ici, bon, le vieux était là pour m'aider, le vieux Mamdouf. Et puis bon, un homme arrive en cours de route, un blédard comme ça, un ancien, Badou Ende est arrivé. <laughs> Et puis le feeling est passé vite comme ça, donc oui. Uh, yeah, no, fantastic. Um, I play with Mum for five years now, so um, I know his qualities. Um, he scored a lot of important goals for us, uh, works hard for the team, um, and a fantastic attitude. I'd say the same with, with Badu since he's come to the side. Um, he's given us that energy, um, you know, so much ability as well. Badou, c'est aussi mon gars. Il est venu dès les premiers jours. Euh, je pense qu'on a tout fait pour l'adapter bien, pour l'intégrer bien. et euh, c'est un très bon gars et je, je, je m'entends bien avec lui, on rigole ensemble, ce qui est très important. Je crois qu'il est aussi très, très, très content qu'il y a quand même des Africains ici. Non, joueur rapide, il ne lâche rien. Vraiment un gars qui, qui ne, marche pas, qui ne calcule pas ses efforts et, et c'est un scoreur. Dès le premier match, um, on, a, on a vu qu'il qu a des qualités avec le ballon, qu'il travaille beaucoup. I think obviously it helps having Mam here to, uh, to help him settle, but I think um, as soon as he's come, to the club. Um, he's settled in very well. He's very well liked in the dressing room. Uh, but obviously, the most important thing is, uh, is his performances on the pitch, and he's been, uh, he's been first class since he's been at the club. Qui voit des espaces pour les, pour les attaquants et tout ça. Et non, c'est un joueur de grande qualité. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'il a joué à Galatasaray, qui est aussi un, un grand club. Et um, je suis très content aussi qu'il qu est ici maintenant. No, very, very, very good. Yeah. Um, obviously uh, very professional uh, since they've been at the club, um, but also, you know, I get on very well with both of them. Um, and a time where we've had a difficult season, um, for me, the, the, two players who've been, uh, been a shining light really in our, in our, uh, in our battle against uh, relegation. Tout d'abord, je suis très content parce que ce sont, ce sont nos, nos frères Lyon. Quoi. Donc, euh, euh, je suis très content qu'ils qu se sont qualifiés. Et la Coupe du Monde, c'est une très belle chose. Euh, Et tout est, tout est possible. C'est vrai que c'est très difficile la Coupe du Monde parce qu'il faut être prêt pendant ce, ce temps-là. Et, euh, mais je pense que j'ai regardé leur équipe, il y, a, il y, a, certains joueurs qui sont très très forts, il y a la qualité dedans, donc tout est possible. Ils ont déjà fait une bonne canne. Malheureusement, ils se sont éliminés contre, contre le Cameroun, mais j'ai vu, il y a beaucoup de qualité dedans et euh, je pense que, et j'espère qu'ils vont faire une, bonne, une belle Coupe du Monde. Au moins peut-être quart de finale ou demi-finale, c'est possible. Inch'Allah, peut-être un jour, une équipe africaine gagne la Coupe du Monde. Good players over the years, uh, certainly in the Premier League. You know, I've played with a few uh, very good Senegalese players, and um, and obviously I now I have uh, two friends in the team that that obviously play for Senegal. I'll be looking out for their results, and and listen, I think they'll do well. I think they've got a good side, um, and I think they they qualified. They deserve to qualify, and. Um, Of course, I'll be supporting England, but I'll be looking out for my Senegalese friends as well. My name's Paul Lambert. I'm the manager of Stoke City Football Club. I, first saw Badu on the, uh, playing for Galatasaray. And the, first thing that I noticed in the game was how much energy he had was, so important for our team. Mm And uh, basically I thought we needed a player like him to come to the club. Mm-hmm. And uh, yeah, thankfully he's, he's been he's been very very good. Mm Top guy, top um, top character, very humble, mm I think is really important for any footballer. <clears throat> And I think that if he does have more success, I don't think he'll change. <laughs> he's been fantastic for us. He's been top class. Mom, mom is uh, another good guy, really top top guy. And the one thing about GIF for me is, is again work energy, and maybe he should more goals than he has. But his effort, you need maybe to change because different personnel is mm-hmm. different. Mm. I think Mam gives us is the same as what Badu does: the energy and the, commitment and mm-hmm. effort. But I think his best position is, a number nine. The same as Badu. Am I crazy in the head? <laughs> no. The same. They're, they're very similar, I think, as mm. people. As uh, people, they're very similar. Mum's more laid back, more uh, laid back, I think. Uh, but important is a, is a really good guy. I think Senegal have a, they have a good team. Mm. Badu, Gay, mm. they have some good players, and. Uh, I think uh, it's going to be difficult. Yeah. For, for the team, Oops. but there's some good players, some really good players. I don't, think many teams will want <laughs> to play them. you know, it's, a dangerous game for the opposition to, play them. So uh, I think, if they qualify from the group stage is a big, big okay. messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans les maîtres du jeu. Surtout, bienvenue ici au Claytonwood Training Ground, le centre d'entraînement euh, des Potters. Vous l'aurez compris, si nous venons ici, c'est bien sûr pour rencontrer deux compatriotes euh, sénégalais, Pape Alundia et a sauté le pas en une la saison euh, de terrain était accueilli en grande pompe par le plus grand club en Turquie en provenance d'Osmalinspor. Donc on parle bien sûr de Galatasaray. À peine six mois plus tard, le joueur sénégalais a quitté le club stambouliote et a rejoint Stock City pour 15 millions d'euros. Le parcours de Papalunia est un exemple de constance, de progression, comme qui dirait une trajectoire ascendante. Il est venu retrouver ici son compatriote Mam Biram Diouf qui évolue avec les Potters depuis quatre saisons. À 30 ans, l'attaquant sénégalais en est à son cinquième club euh, dans le haut niveau. Et cette saison, cela va beaucoup mieux pour Mambiram qui refait trembler les filets, qui joue à son poste de prédiction euh, à la pointe de l'attaque avec un état d'esprit toujours aussi irréprochable. Pape Alundia et Mambiram Diouf, deux joueurs internationaux sénégalais, dont le club malheureusement sera relégué en championship. Stock City n'a pas réussi à se maintenir. mais la perspective de la Coupe du Monde va certainement leur redonner de l'énergie puisque en ligne de mire euh, compétition que doit accueillir Russie 2018. Alors, l'entraînement vient avec nos deux compères. Nous allons ça va ça va def. est-ce que du la bàyyi si digg pourquoi pas <laughs> avec la galanterie légendaire de nos Sénégalais alors euh, entraînement bi jeex na on est en fin de saison. c'est vrai que j'imagine que vous êtes plutôt déçus parce que bon le maintien n'a pas été assuré. Oui, effectivement, c'est une grande déception. Voilà, on, y a cru, on n'a pas on euh, se maintenir. donc voilà c'est logiquement c'est une grande déception. waaw Mame les supporters nan lañ ko dundee euh, comment ils ont réagi c'est vrai que vous êtes battus mais ça n'a pas marché est-ce que dina indi ay ay xiiro ak ay ŋaayoo ou ils sont plutôt compréhensifs. waaw mais c'est normal hein, parce que comme comme ni ko Badou waxee boo xoolee metti na trop bon ainsi la vie parce que on a tout essayé depuis le début et. savent bien qu'on a tout donné pour assurer le maintien. l'homme propose, Dieu dispose. Donc euh, là, c'est fini. Justement, les autres échéances, on en parlera, mais on aura aujourd'hui euh, l'occasion de vous découvrir dans votre vie, dans votre ville. Évidemment, précision importante, on va découvrir la carte postale de Stock City, mais attention, Papa Ndiaye et Mambiram ne vivent pas à Stock. Je pense que c'est trop calme pour eux. Ils ont décidé d'aller s'exporter du côté de Manchester. Donc, bu ñu découvrir carte postale Stock ba pare dañuy ànd ak ñoom dem Manchester kon gars yi ñu dem di ngeen quand même faire les guides au moins. non nañ topp si ginnaaw <laughs> amul c'est parti. <laughs> waaw man moom bi ma ñëwee bon maam c'est vrai que clé la ma jox c'est vrai que Stock nag presque benn jour dëkku fi. Parce que apparemment c'est une c'est une ville très tranquille boo xam ne y a y pas grand chose à faire donc okay. euh, presque joueurs yëpp côté Manchester lañ comme Manchester stock euh, voilà c'est c'est c'est vite fait en voiture. Okay. donc euh, voilà chaque matin dañuy quitter Manchester pour ñëw stock ça nous prend 40 minutes et puis c'est vite fait comme Dakar Thiès la rek. mais ci ci ci ci rue yu gën a tàlli am di dégg bureau ta <laughs> dafa mel ni nag li fi am bëriwul ah <laughs> li fi am bariwul il paraît mais cool donc fii la diwaan bi quoi. première photo bi sama sama sama ñaari doom defal woon benn jacket buñ soloon am sama tur si moment Christmas bi donc bii euh, moom il fallait que ma wane ko parce que ñoom tout le moment saa ñu paree match dañuy bëgg ni di wàcc si stade bi comme ça ñuy jouer def euh, donc euh, comme c'est la famille la plupart ñoo nekk ensemble troisième bi bi la donc euh, mook sama taaw donc euh, ba ñu ñëwee seet sama Allemagne donc euh, comme comme ñëpp xam nañ ni demee donc photo mu touché la vu que comme mooy sama taaw te sama yaay ñëpp xam nañ waaw affaire bi mu demee donc ñetti photo yooyu la mooy photo lañ ko bon nekk mes parents nekk je pense que voilà ça ça résume tout je pense que rêve la woon depuis depuis euh, depuis temps booy je ku nekk euh, da ngay rêver yóbbu sa ay euh, sa ay parents ñu def pèlerinage bi. deuxième photo celle-là aussi elle m'a elle m'a beaucoup touché ça me rappelle des moments assez difficiles. période bi la lañ ma opéré au donc euh, dama waroon signer un contrat mais j'avais un petit souci au niveau du ménisque loolu moo tax euh, le transfert finalement capoté ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daf ma daf ma marqué donc euh, photo bi dama ko dama ko dama ko gardé parce que su nekkul woon le soutien de mes amis ak de mes de mes proches voilà demee neneen <coughs> y en pas mal hein mais bon comme comme trois <laughs> comme trois nga ma may xaaral ma xoolaat beneen. Mm. Mm. jël sa temps rek am benn non. Mm. pas mal. Ah. man de xaw ma c'est pas mal pourquoi. expliquer ah. expliquer lu bopp. non man de xam naa. waaye c'est le c'est le jour de mon mariage. très bien man Birame Pape ñun tamit on va se mettre euh, <laughs> en mode photo un moment inoubliable donc on va rejoindre Pape Alioune et puis ñun tamit. ok ñu door suñu benn. suñu benn selfie. ñu boole ko tamit ci ci souvenir yi. ñu selfie. yes. voilà Papa Alioune Mame Birame à présent vos goûts vos couleurs vos choix de foot question-réponse de la manière la plus spontanée possible Pape Alioune Pape Bouba Diop ou Salif Diao. les deux. Ah, les deux. Mamadou Niang ou Henri Camara Henri Camara. Pour moi, comme je suis un attaquant, donc je vais prendre les <laughs> deux. Aliou Cissé ou Alain Giresse Ah, Aliou Cissé. Euh, ouais. Ah, les deux. Je prends les deux. Messi ou Ronaldo Messi. Messi. Platini ou Zidane Zidane. Zidane. Barça ou Real Barça. Royal. Jaraaf on allait au Kenya. vous êtes allé Voilà. Génération Foutu Jambar. Jambar. Dans les autres sports, messieurs, nous doulons au Balagay. caméra bi si yow la nekk. waaw ci yow kay nga ci rek. non les deux les deux. bon les deux. Siteu ou Ama Baldé. ñaa ñëpp sama mbokk Baye donc les deux. LeBron James Stephen Curry là vous ah, LeBron. pareil. pareil. Lakers ou Chicago Bulls? Chicago. Lakers. Kobe Bryant ou Michael Jordan? Jordan, 100%. Pareil. Ok. Dans les goûts culinaires, ceebu jën ñaari cin. ñaari cin. ceebu jën. Touba ou ataaya? café Touba. waaw pour le Baye Fall, c'est évident. Les deux. Ah, ok. Dans de la vie, Facebook ou Snapchat? Snapchat. ah man yow laa doon xaar. Facebook. ok. Twitter ou Instagram euh, la première voiture que tu as conduite C'était une euh, Chrysler. Ok. Mam euh, le premier cadeau que tu as offert à ta mère en tant que professionnel Ok. Alors, Mambiram, si tu euh, devais me décrire le caractère de Papa Youn. Qualité, moi, ñëpp la respecté donc boo ko xoolee déjà boo ko xoolee rek da nga koy respecté parce que dafa am cër ñëpp ba mu ñëwee fii ba léegi euh, loolu la ma jox te loolu la may bu loolu dara bokk koñ donc euh, boo ko xoolee saa yu ma ko xoolee dama koy xoolee comme sama rakk. Papa lui pour terminer. non moom day wax rek mais moom moo mel noonu moom moo mel noonu. Euh. acteur boobu beneen beneen lenn loo xam tout défaut sax mais je pense que je pense que xaw ma sax ndax défaut la mais gis naa ne ku dëgër bopp la. <laughs> maam en fait moom mën nga ko soo ñëwee waxtaan ak moom. mën nga ko amener amener à la raison ñëw wax ak moom maam lii nii. mais soo ko bëggee imposer rek ji ko ji ko sénégalais bi day génn. ji ko ji ko ku dëkk parcelle bi day génn bu doon dee sax du ko def. Ah, je pense que ah, loolu loolu mën naa ko séddale. ok. que comme le veut la tradition so ñëwee si dëkk da ngay seet si kilifa gi n'est-ce pas Pape. waaw ah. su ñu seetee bi nag après ñu dem kër rak ñu

yaa ngi toog di seetaan machine yi ba waaw. home cinéma là en fait. home cinéma yeah. voilà. Et... ok ah non mais fii fii dafa nugg sax. les maîtres du jeu avec euh, Papa Lune Ndiaye et Mame Biram Diouf euh, comme vous avez eu à les découvrir côté court côté jardin à présent nous nous posons pour échanger sur les carrières le parcours. les obstacles et bien sûr les perspectives alors euh, dañuy tàmbale ak ak Pape Alune ndax euh, Pape Alune euh, actualité am quand même ci <laughs> je pense at bu mujj bi xaw na xaw na bëri doole man déjà dama la bëggoon laaj tout simplement ci mercato hivernal bi bi ñu commencé dégg rumeur yi ci transfert u Pape au niveau de la la première ligue est-ce que déjà dégg nga ko puis est que gëmoon nga ko. waaw waaw gëmoon naa ko déggoon naa ko sax bien avant. voilà muy génn si média donc euh, waaw c'était c'était c'était vrai euh, on avait déjà parlé donc euh, j'attendais rek de voir comment les choses allaient se passer mais yëgoon naa ko waaw. mais pourquoi avoir accepté quand de prendre le risque de rejoindre Stock City ndax ñëpp xamoon Stock ci ay jafe-jafe la nekkoon yaa ngi woon club boo xam ne ñu tudd Galatasaray nekk le plus club turc avec Galatasaray. j'étais sûre nga dem Europa jël risque boobu. voilà au fait peut-être sax tey la ma yàlla jox euh, opportunité bi ma ma ma ma exprimer aussi déjà man jëlewuma ko risque du risque te nekkul sax risque man tey je peux dire que euh, choix bi ma def mooy choix bu gën a baax sama carrière ma dalee football ba tey. après tey beaucoup de gens ok peuvent ne pas être d'accord mais loolu la tey la depuis bi ma ñëwee Angleterre encore une fois dama franchiraat beneen cap parce que tey au niveau de au niveau ce qui est regrettable pour moi en mooy que tey euh, Stoke City maintenir wala wala relégué en championship ñu bëgg a foofu ne ci laa defee un bon choix wala euh, un mauvais choix alors que pour man du foofu. tey bu ma nekkee tey su ma ñëwoon fii adapté wu ma ci championnat bi wala ma ñëw fii aw ma un temps de jeu conséquent tey dal na fi ay joueurs yu bëri mais tey dama ñëw rek mu mel ne mu mel ne fii laa commencé saison bi macha allah dama ñëw aw ma problème adaptation tout de suite ñu jeté benn benn séance laa def ak ñoom ñu titulaire loo ma et voilà amul woon amul woon benn différence. loolu mam laa koy laa koy jébbal kon question maanaam est-ce que waxtaan ngeen ci ci bi et puis yow conseillé nga ko lan nga ko wax en fait tout simplement. bon comme li ma wax rek parce que nit ñi te nañu wax ne dafa jël risque parce que carrière la te footballeur li ngay ñaan yàlla mooy franchir ay étape donc euh, moom. bañ ci waxtaanee lan la wax laaj na ma équipe bi nu mu mel nu mu demee ak léegi na fii expliqué naa ko wax naa ko li fi am ak li fi amul donc xam na ni baax li fi newoon bien vrai que metti woon na parce que boo xoolee suñu début de saison bi moo ñu xaw a yàqal lu bari parce que match yi ñu perte yëpp dafa bari te en plus bi ñu encaissé woon mu bari woon na trop taxoon na ni. defoon nañ suñu yaakaar am bu ñu ñëwee ba janvier ak renfort yi bu ñu ñëwee xam nga dinañ am benn chance boo xamante ne war nañ mën a maintenir en première ligue bon malheureusement tim nit bëgg-bëggam rek la mën a def donc euh, te ñun yaakaaroon nañ bu baax te xam amoon nañ ci yaakaar bu baax te sawaay wu ñëwee war nañ ci mun a génn bien vrai que instant bi bon génnuñu ci mais bon lii la yàlla dogal justement maam yow damay des ak yow parce que xam naa jàngat bi ak euh, recul bi yaa koy gën a am man bu mm-hmm. ma xoolee un peu évolution stock euh, damay gis ne l'année dernière da ngeen à la treizième place mm-hmm. ngeen am 44 points mm-hmm. deux ans de cela ngeen terminé neuvième donc ren ngeen ñëw wàcc maanaam on voit que quand même depuis trois saisons il une forme de régression loolu lan moo koy expliquer bon man li mu mën wax mooy comme ba ma fiy door a ñëw affaire yëpp nekkoon deux ans sama premier deux années yi neuvième lañ terminé donc euh, mu doonoon progression bu bu baax si ñun si équipe bi donc euh, affaire bi ne woon groupe donc ñu dem troisième année bi affaire yi metti woon na parce que amoon yenn joueurs yi dem yeneen joueurs yi ñi ñu andi mënuñ compenser ñi dem donc euh, affaire yooyu yëpp après ren mooy li may wax rek donc euh, ren mu am jour yu bëri yu ñu ñenn ñi ñu libéré ñu dem ci yeneen club ñeneen ñi ñu yóbbu leen en prêt donc affaire yooyu yëpp manqué woon groupe bi commencé woon di tas donc euh, looloo waroon suñu début de saison xawoon metti te boo xoolee ñi demoon ñëpp amuñ amu amuñu ay joueurs yoo xamante ne remplacé nañ donc euh, affaire boobu metti woon trop parce boo xoolee groupe bu formé woo ba pare boo ciy génnee ay cinq jours nit ñi dañ koy gis. même si vous êtes relégué euh, cette année ça s'est beaucoup mieux passé pour vous. Mm-hmm. ndax soo xoolee Maam dugal na ay buts. Mm-hmm. pratiquement six je pense six mm-hmm. saison bi. aussi euh, Maam joué na ay match. mais euh, même s'il faut pas remuer le couteau dans la plaie. je pense que nekkoon na année bu métti. pour Maam Biram qui n'a pratiquement pas. joué ou en tout cas qui n'a pas joué à son poste. Mhm. qui ont ñu koy waxee euh, mhm. dans le jargon. Mhm. c'était un Mame Birame en dedans. est-ce que mën nga ñu raconter un peu. waaw boo xoolee effectivement li nga wax dëgg la parce que boo xoolee nit boo ñun football rek la am donc buñ la nee football ba ñuy xale ba léegi moom la ñuy def donc bañ tàmmalee ba léegi même position la ñu mës a donc euh, ñëw saison jóge saison. pare pare saison après dem vacances ñëw ñibbisi ñu changer la position di la dugal feneen ak feneen mu mel ni nga gis camera caméraman di ko jox micro naan ko pour mu def interview xam nga day mujjee metti mm. bien vrai que mën na ko def mais waaw loo xamante ne vocation am la mm. donc euh, affaire boobu daloon nañ trop mais le fait que football lañ bëgg te defoon naa foo ne ci biir terrain bi war war nga ci mën a joxe sa bopp jox wone sa wone sa bopp def cent pour cent si mais metti woon na trop metti woon na trop ndax. Euh, dama bëgg xam un moment donné est-ce que lu ngeen waxtaanee la est-ce qu'à un moment donné ça t'a révolté nga retrouvé dans cette position. Hmm. ou tu as parce que da bëggoon football tout simplement. non au dé au début dañu dañu manqué woon ay jours. au début ay blessure la woon donc euh, vu que ay blessure la woon donc ñu changé système entraîneur bi andi ma foofu noonu ñuy xool. donc euh, ba blessure yi rëbb ñëwaatee ñëpp ñëwaat ma ne ko lii mënta ne. mënul continuer parce que man man noonu la mel man boo amee dara lu may lu nekk sama xol dama la koy wax. <laughs> bu lay neex mu lay naqari dama la koy wax. donc euh, ñu waxtaan si mu ne ma waaw dootul amati donc de ce fait bu ñu semaine bi yëpp mën nañ jouer mën nañ entraîner du ma fa mës a football bu ñëwee ba ci meeting dernier meeting bi affaire bi ñëw donc ma tourné xool ko ne ko mais quest kii dafa mel li ma waxoon yëpp déggu donc yenn joueurs yi ñëw ci man naan ma c'est xam nañ ni neexu la mais commerçant yi on a besoin de toi yow bul wax dara bàyyi ba après nga doon wax donc de ce fait match yu bëri boo gisee ma football foofu looloo taxaw. mais mais mais euh, foofu aussi bëgg naa ñëwaat tuuti ci ci ci Pape parce que club yu mag tamit day tax peut-être progression gën a gaaw bëgg naa nga wax ma un peu si mois yi nga def Turquie Galatasaray lan nga ci jàng lan nga fa jëlee. bon waaw euh, Galatasaray déjà mooy équipe bu gën a mag Turquie mooy équipe bu gën a titré. titré waay mm. équipe bu équipe bu mag la mais ak. Euh, Galatasaray man pour man comme équipe nationale c'est-à-dire comme comme équipe nationale dafa dafa dafa compliqué. Mm-hmm. pour jouer. Mm-hmm. parce que la pression elle très très forte c'est-à-dire chaque semaine chaque week-end les gens ils que ngeen gagné. Mm-hmm. c'est-à-dire ñoom loolu lañ bëgg chaque semaine lañu. ok donc euh, sama bon sama ñëw aussi comme euh, pour ñoom bon dañu mettre beaucoup d'argent si man. Mhm. donc euh, avant que may signé sax commencé yenn supporters yi commencé nañ ma menacer à la limite. ah bon waaw ne gis nga. li ñu def ci yow bi ñu def si yow salaire bi ñu la nar a jox est-ce que ngi gis loolu tu as intérêt que boo ñëwee fii nga xam nga wax. Mhm. bon man euh, ébranlé wu parce que voilà xam naa xam naa li ma capable. Mhm. mais. parfois football dafa xaw a doy waar. Mhm. mais je me suis dit rek que qu'on n'avait jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Mhm, mhm. et pour moi cette première cette première impression elle était importante parce que soo loupé sa premier match rek après. mën na la topp. man nga rattrapé wu mais sa va être parce que loolu mooy des si bopp nit yi. donc euh, c'est vraiment là où j'ai mis le ne premier match bi bon c'est vrai que en football. à chaque sortie, il faut essayer de faire euh, mieux, mieux que, que, que, la précédente, remise en question perpétuelle. Mais malgré ce premier match-là, il est, il, est, il est, très important pour moi, pour ma confiance et voilà, mm -hmm. pour tout le reste. voilà échéance yu mag yi ngeen di wax nag fa la ñuy dugg mooy xam naa nekk suñu pàcc bu mujj ci ci waxtaan bi mooy évidemment euh, mbirum équipe nationale du Sénégal ak coupe du monde bi waaj a ñëw mais aussi ku nekk ci yéen seen jaar-jaar peut-être jaar-jaar bi foofu si damay nekk ñaari invité yi ak ñaari joueurs yi toog sama wet dañu xaw a am similitude parce que yéen ñaar ñëpp foog naa bi ngeen di ñëw équipe nationale comme ni ma koy waxee peut pour wax ko en français vous n'avez pas eu votre chance tout pour ku ci nekk def sa trou et voilà je pense que yéen ñaar sax des fois ngeen daan ci waxtaan ci tanière bi maam di la dëfal di la ne muñal ndax man aussi euh, bi may soog a ñëw euh, métti woon na donc maam est-ce que mën nga ñu wax un ci ci ci sa jaar-jaar après Pape Alioune ah, yeggali wax nga lépp ah wax defe naa ni témoin la ci woon mm. ñëpp ñëpp gis nañ ko sama mm-hmm. commencé football du léegi euh, neuf nga nekk ci tanière bi ah. yàgg na <laughs> neuf yi defe naa six six ans yëpp <laughs> vingt laa ko toog. <laughs> waay donc euh, waaw métti na trop. métti mm. na trop parce que di football sa club ñëw ba équipe nationale doo sax bokk si ñuy football donc euh, neexul ci xol. Mm-hmm. mais bon comme comme ni ma daan wax tout le temps sama bopp naan. ñëwaloo sa bopp da nga ñëw pour peuple. donc heure bu jotee rek incha allah dañu ko donc à à tout moment loolu laa doon wax sama bopp à tout moment loolu laa doon convaincre sama bopp pour rester en contact juste taxaw ne xam nga la yow toogal rek xaar yàgg yàgg yàgg sa sens na ñëw donc. sens euh, bi kenn la ñëw finalement. sens bi kenn la mujjee ñëw. xanaa contre Égypte. xanaa contre Égypte. waaw mooy ba. Papis gaañoo je sais pas daam xool ma daam Demba def naa ñëwul woon Papis je sais pas waaye change bi jour boobu la. Vous Coupe d'Afrique 2015 qualification yi la woon. waay non qualification Coupe d'Afrique. boobu la ñëw. Mhm. premier match bi Dakar ba ñuy ba may dugal premier bi da Sadio di dugal deuxième. Mhm. donc euh, boobu laay. doo ko joué titulaire en équipe nationale donc euh, waaw xaaroon nañ ko bu yàgg. xaaroon nañ ko bu yàgg métti woon na. métti woon na trop trop trop. am na ay similitudes peut-être ci épisode yu métti yi mooy euh, veille CAN 2015 bi justement bokkoon nga ci présélectionné yi mais euh, bi Alain Giresse di tànn bokkoo ci ñi nga xam ne mooy 23 yi mu tànn je pense que loolu quand même épisode boo xam ne la xaw na la métti bon métti na ci xol en tout cas. waaw bon yow sax yaa tudd loolu sànq. ci photo yi may tànn biñ may biñ may opéré au fait période boobu j'ai dama dama des sensations très fortes. Mm. parce que ci période boobu tam juste avant si la ma Aliou euh, la ma Alain Giresse pardon. Mm-hmm. Euh, écarté écarté. Mm-hmm. si la waroon signé. Mm-hmm. ma gaañu. mais foo waroon signé. parce que ok ma am problème mu yaa ngi woon Norvège boobu. ok sa visite médicale ma war a delluwaat Norvège bu nga xam ne jëloon naa sama bagage yëpp fa ne fii moom pare naa fi. donc hmm, ok donc affaire yooyu yëpp ñëw daanu sama bopp j'étais j'étais plus jeune. Hmm. c'était plus dur. Ah, c'était plus c'était vraiment dur j'ai failli décrocher. Hmm. mais tey comme on dit sama entourage kër ma jàppale sama sama sama famille xam nga mu métti trop mais je n'ai je n'ai je n'ai pas baissé les li ma li ma waxoon Alain Giresse rek parce que boobu j'étais j'étais j'étais plus après bon bu ma bu ma woowee di ma annoncé que daf may écarté. Mm-hmm. bon m'a dit que na ne am naa mm-hmm, mm-hmm. mais mënuma yóbbu. donc euh, après mu laaj man lan laa si xalaat bon li ma waxoon rek ma ne ko man tey xam naa ne tey am naa ay qualité yu ma permettre ma dem bon tey dew ma. je l'accepte choix wam mhm. la mais pour moi je suis sûr que c'est plus une question de temps qu'autre chose mhm. et que j'espérais j'espérais juste que jour bi may am chance moom dina ko fekk mhm. malheureusement la suite on la connaît mais j'ai pas j'ai pas baissé bien au contraire j'ai redoublé d'efforts gën a et puis après voilà ba yàlla yàlla yàlla andi ay. continuer à travailler. Mm, yàlla bien sûr yàlla gën a bunti. bien sûr alors question de question de fond c'est vrai que tey mun nañ ni Pape Alioune bokk na ci groupe bi groupe de performance de manière régulière def nga CAN bi les éliminatoires de la coupe du monde tu as tout fait mais da nga nekk ci secteur boo xam ne macha allah c'est le secteur certainement le plus fourni de l'équipe nationale tey soo doon def sa bilan par rapport à ton temps de jeu. Est-ce que tu considères que tu as apporté quelque chose de plus, en tout cas à cette équipe nationale Voilà, tu peux encore mieux faire. Pour man honnêtement, on peut toujours mieux faire. man tey loolu laay wax parfois su ma jógee sax parfois dama si am sax ay sama sama sama sama soxna daf ma si clash parfois. Mm-hmm. parce que daanaka on dirait que tu n'es jamais content. Mm-hmm. parce que man. perfectionniste la mhm. man dama gëm ne loo def rek mën nga def mhm. Mhm. moo tax nit su may critiquer parfois sax damay jàpp ne kii daf may ménager parce que personne ne peut être plus critique que je le suis envers moi-même chaque fois du ma ménager sama bopp donc tey loolu te ci état d'esprit boobu laa nekk ba tey pour man loo def danga ko war a xeeb bu ñu demee nag ba tey ne dañuy raccrocher suñu ay voilà dañuy raccrocher bàyyi football là on va dresser un bilan <laughs> xool tey lu ñu kii mais tant que ñu ngi si il faut toujours ngay xool lu nekk. avancer tey que tey soit en équipe nationale wala en club. chaque fois il faut mhm. dinaa si ñëw ak Mame biram mais benn question lay posé foofu encore mooy par rapport a sa position parce que j'ai remarqué ni Galatasaray je pense que Osmanlin Sport bi nga fa nekkee tu jouais beaucoup plus haut. Mhm. mais Galatasaray dañ la wàcce. Mhm. nga nekk genre numéro 6 nga ñëw fii toog ñu confirmer la. c'est souvent ñun Sénégal li ñuy wax mooy ni que. on a beaucoup de milieux récupérateurs maintenant ce qu'on veut c'est peut-être un milieu relayeur koo xam ne day casser les lignes di def passe bi est-ce que loolu nawul nekk handicap puisque finalement tu rejoins un profil qu'on a déjà à pléthore dans cette équipe nationale le repositionnement en club en fait non mais tey man euh, Dieu merci am naa am naa capacité boo xam ne tey mën naa avancer mën naa reculer tam man yàgg naa ko wax il m'est arrivé mais maintes fois si benn match ma joué à trois postes. différents trois mhm. tey mais les repères sont les mêmes. le fait de changer di comme ça euh, voilà nekk 6 nekk 10 nekk 8 enfin je sais pas. franchement man awma problème d'adaptation man man man man man je m'adapte vite macha allah ma lu ma si j'essaie de m'adapter en fait. Mhm. moo tax ñu bëri bi ma ñëwee fii. ni ma gaaw a adapté daf leen daf leen jaaxal pour man tam loolu la le niveau il faut il faut nga am capacité d'adaptation bu baax mhm, mhm. les gens n'ont pas trop le temps di la bàyyi ngay mhm. donc il vite être dans le bain ah tey loolu la tey pour man équipe nationale club il faut être prêt ah ok alors Mame Birame euh, équipe nationale boobu ngay wax moments yu difficile yi les début où tu as eu du mal à trouver ta place en tout cas on a eu du mal à te la donner après nga ñëw imposé wu ak Alain Giresse ak Aliou Cissé mais CAN bi quand il faut dire qu'il y a eu une grosse rupture entre Mame Biram et peut-être le public sénégalais parce que Mame Biram dañ ko doon dugal mais Mame Biram du du dugal <coughs> te attaquant yaakaar naa ne loolu lañ ciy xaar dugal euh, <coughs> déjà yow lan nga ñu mën a wax ci manque d'efficacité boobu de pre de un et de de nan nga dundee critique yooyu ak opinion bi niñ doon xam nga xawee même à la limite mettre la pression sur le sélectionneur. mooy li wax rek parce que ñun ñëpp ay Sénégalais lañ donc euh, pour dugal di dugal di dugal jékki-jékki dugalagul dugalatul mun a fàtte lam ci daan bon comme li ñuy wax rek ñun ay Sénégalais lañ te ñun ñëpp ay boo xoolee Sénégal ñun ñëpp ay coach lañ donc euh, <laughs> mooy li wax rek ñun ñëpp coach lañ euh, man. bu ma nee ci biir terrain kenn gënumaa bëgg dugal loolu mënta ne boo ko xoolee sama kanam boo ko xoolee ni may fubalee nga xam ni kenn gënumaa bëgg dugal donc dugal nag je sais pas yàllaa ko may. Mhm. bu suba bu tayee mën ngaa dugal. bu mhm. mhm. nga ñëw dugg lépp loo dugg affaire yi affaire yi taxaw. taxaw donc malheureusement ça m'est arrivé la CAN. bon. dañ koy accepté rek te xam ne ay nit lañ te ay jullit lañ. Mhm. donc euh, avant ñuy dem Coupe d' Afrique bi match yi ma joué éliminatoire yëpp damaa dugal bii donc match yi ma joué yëpp dugal naa bii ñëw ba Coupe d' bii dugul <laughs> gaa yi fàtte ko. waaw lu mu gaaw gaaw gaaw fàtte nañ ne avant Coupe d' maa doon dugal donc bu ba Coupe d' Afrique donc y' quelque chose. Mhm. donc mais. loolu noonu du sax ay excuse mhm. parce nit moom pour sama sabab critique moom ci ñu la nga mhm. ci ñun la fekk baax mhm. parce que ndem ñoo jël ne lii lañ opté pour def boo mënul boo boo mënul contenir nit ñi taxaw di la critiquer donc ça biir dire que bu la yoboo nga bàyyi kii nga bàyyi li ngay def te mais teewul ci biir terrain bi saa yi ma fi nekkee danaa si joxe sama kéemtalaay kàttan xëy na nag bii bi ñëwul. Mhm. malheureusement ñëwul mais mënoo ma critiquer mukk si biir match. bu fekkee mun a muñ ak dëgër la moom defe naa ne war na war na mos naa di ko ne équipe nationale saa yu mun ñëwee. Mhm. Mhm. donc euh, dëgër ñëw bi metti woon na trop parce que bu ñu bu ñu xoolee bu ñu waxee rek te yàlla tax équipe nationale di football nga fa daan football nga jékki-jékki ñëwatoo. donc loolu boo nee. metti wu woon damay nax sa bopp metti woon na ma trop mais bon mooy li ma wax rek lépp loo gis rek daa am lu ko waral donc euh, lépp loo am rek man damay jàpp ne yàllaa ko dogal sama yoon nii la parce que man noonu laay dundee sama àdduna parce que yaakaaruma kenn ku dul yàlla. Papa Lune euh, chance suñu Sénégal si coupe du monde bi kooku tamit. yaakaar naa wax nañu poule équilibrée am ñu ne poule ouverte bon voilà les qualificatifs sont là mais ces matchs là il faut les jouer et pour les pour sortir de cette poule il faut gagner des matchs. Ouais. Après c'est pour moi c'est c'est c'est une poule équilibrée. C'est une poule équilibrée, rien n'est encore joué. Bon, je je l'avais dit avant, j'ai pas encore vu une équipe gagner ou perdre un match sans l'avoir joué. Donc euh, voilà, toutes les équipes partent à, à chance égale. Il faudra, faudra aller, aller là-bas et puis euh, faire le travail surtout là-bas. Il faudra faire le travail là-bas. Est-ce qui pourrait faire la différence Je pense que bon, on aura des matchs âpres, très disputés. Donc il faudra, il faudra jouer sans complexe. Alors pas du tout. Pas de complexe et euh, que chacun joue à son meilleur niveau. Je mhm. pense que si on a une équipe du Sénégal où chacun est à son meilleur niveau, il n'y a pas de raison pour que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Très bien. Donc, euh, l'occasion de vous dire également que vous pouvez soutenir les Lions à travers donc, la campagne lancée par Orange. 15 millions de messages pour les lions. Pour cela, très simple, vous pouvez aller sur 15 millions de lions.sn. C'est un site spécialement créé par Orange en vue de cette Coupe du Monde pour que vous puissiez poster vos vidéos, vos messages et soutenir donc nos lions. Orange, évidemment, partenaire des lions depuis 20 euh, ans. Alors, messieurs, fini les moi avec le quiz de la Coupe du Monde. C'est une coutume également dans cette émission. On va commencer par une question toute simple. Première Coupe du Monde, Bingen Fatelikou, Bingen Bingen Senbo. Euh, kon fàttaliku bi leeragul <laughs> Non, moi, bien avant quand Je dirais, ouais, 98, je mm-hmm. à la Coupe du Monde 94, j'avais 4 ans. Mmh, ouais, aux États-Unis. T'es vraiment tout petit. non. <laughs> mais non, euh, mm, Remporté, je par le Brésil. boobu laa ah. commencé vraiment di wéq. ci ah, ah, ginnaaw ba 98. 98 euh, joueur bi leen gën a marqué ci coupe du monde. moi je dirais euh, Iniesta il m'a beaucoup marqué. Mmh. maam. Sénégalais ou. <laughs> ku la gën a marqué. bon man dinaa wax. Euh, comme attaquant Ronaldo. Mmh, Ronaldo. Effectivement. Ok, merci beaucoup. Je n'ai pas trop tiré sur les <laughs> questions. Je vais vous laisser le dernier mot. Ku nekk euh, am ci euh, kàddu gum ci sànni Mame Birame. waaw ah, euh, di merci beaucoup. Mmh. te li nga def nii rafet na trop parce que mënoon na la ci bañ fekk. ñëw fekk ñu fii wan ñu gars yi comme. surtout mm-hmm. ñu ñuy gis ñuy lu bëri malheureusement waaye. Euh, rafet na trop. Mm-hmm. waaw di nuyuwaale sama copain si pële ne Hamza. Mm-hmm. waaw mais rafet na trop de wax sant yàlla bu wër waaw di wax gars bu ñu fàtte di ñaanal. ndax euh, ay doomu Sénégalais lañ dañoo ñëw rek pour daan ci suñu doole. Euh, di nuyu waa Sénégal yëpp suñu waa famille donc euh, papa yaay ak sœur yeeg ñëpp. Mhm. di wax euh, échéance yi di ñëw muy di coupe du monde yi di wax Sénégalais yëpp ñaanal ñu. Mhm. donc euh, dem si bisimilah rahmaani rahim génnaat fa si alhamdulilah rabbil alamin donc lépp lépp saawaan baawoon. amiin amiin mm, papa Lune. déjà déjà déjà di leen di leen di leen remercier. si si déplacement bu ngeen def si ñu fii sa fait ça fait plaisir di la di la remercier yow di remercier également Hamza sa sa caméraman donc euh, voilà mooy li li maam wax rek di tàllal suñu loxo waa waa Sénégal Euh, di wax ñu ñu yokk ñaan yi et puis euh, di ñaanal jàmm ñëpp je pense que a passé une une très belle journée. nañ seeti seeti maam. Mm-hmm. nañ dugg naa wàññi toog <laughs> bon nañu maanu rek euh, comme ci koor gi lañ nar ne nii na ñëpp maanu. bien. bien sûr on respire un peu. on a pu parler wolof de gauche à droite <laughs> donc, donc ça fait ça fait plaisir. Merci. donc di leen ñaanal jàmm et puis encore une fois di. di merci à vous en tout cas yéen ñaar ñëpp maam Biram ak Pape Alune encore une fois je pense que suñu séjour en Angleterre bi euh, vraiment on l'oubliera pas de sitôt parce qu'on a été euh, vraiment super bien accueillis gars yi ñu ngi ñuy toppatoo yombalal ñu liggéey bi defal la ñu lépp lu ñu bëgg donc ñu ngi leen di remercier aussi bu baax euh, di leen ñaanal wér di leen ñaanal euh, donc li ngeen bëgg seen carrière yàlla defal leen ko ñu ngi remercier aussi suñu partenaires yi encore une fois l'écran Orange ñu leen di jaajëfal di jaajëfal euh, Bomba Couture moom nag euh, moo ñu ñawal donc moo ñu solal da ngeen au 77 419 32 32 ñoom nag ñi ngi nekk euh, côté parcelle cité Fadia euh, pas loin de la station Shell di remercier aussi Absali li coiffure elle est au 7 77 727 34 48 di remercier ñëpp ñi seetaan di remercier ki togg ceeb bu neex bi maanaam euh, Pape Alioune Ndiaye <laughs> donc voilà yàlla yàlla baal te yàlla nangu suñu koor